garab gii di fleur mu mel ni ne am na solo lool ci dundu doomu aadama Ablaye Ndong di yëngu ci wàllum euh, fleur ñu koy oowee fleuriste daal dinañu xamalek njariñ yi làmboo garab gi di fleur waaw comme niñ koy dundee nii mooy booy commencé da ngay jëndi suuf comme terrain bi da nga koy jënd jëndi suuf jëndi ay mbuus yoo xamante ne mën nga ko da nga koy sol ba pare tooyal ko ba mu tooy pare nga dem jëndi ay plante plante yi boo ñëwee ci mbuus yooyu nga xam ne danga koosol ba mu fees nga taal leen ba mu tooy ci plante yooyu ngay ji plante yooyu foofu nga koy jëmbat di leen arrosé di leen arrosé bu ñu jóg xam bu ñu jógee yeneen yi am na am na façon fleur yoo xam ne boo leen gisee yii dañuy génne ay fleur yii dañuy génne ay fleur yi nga xam ne ñooy génne ay fleur yooyu ci naaj bi la ñuy nekk mooy yi ngay gis nii yooyu ci naaj bi lañuy nekk yi nga xam ne duñu gën ay fleur boobu da nga leen di defar mbaar comme mbaar bale ngay seen nale waaw mbaar boobu ci ginnaaw mm-hmm. waaw waaw yi nga xam ne nag mooy yi gën a fleur yi presque wax na mën naa wax ne seer nañu seeruñu waaye sincèrement par l'instant bi ñu ngi gërëm suñ ñu ngi gërëm yàlla daay ñu ñu ngiy dund te dépendre ñu ci kenn